juróom fukk ak ñaar ndamu Suleymaan asalaamaaleykum mbokki déglukat yi nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla boroom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub wi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw. am na nu mbégte ci li nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub su fekkee ne yàlla dafa la feeñu ne la waxal li nga bëgg ma may la ko lan ngay tànn fan wu gudd alal ju bare tur wu siiw wala lan amoon na bés yàlla feeñu suleymaan doomu daawuda ci biir gént ne ko waxal li nga bëgg ma may la ko ndax xam nga lan la suleymaan tànnoon dinanu dégg tey ni mu tontoo woon yàlla ci njuróomi njàng yi weesu nu ngi doon gëstu ci nettaleb yonent yàlla daawuda ak li mu bindoon ci sabuur ci sunu njàng mi weesu gisoon nanu ni daawuda yëgle woon ni doomu aadama yi naroon na reye almasi bi ci daaj ko ci bant ak ni ko yàlla di dekkale ca néew ya tey jii nag fas nanu yéene jóge ci nettalib daawuda jàll ci nettalib doomam ji ñuy tudde suleymaan kon ci téereb buur yi saar ñaar mbind mu sell mi neena bi daawuda di jege àppam mu dénk suleymaan doomam naan ko maa ngiy jaar ci bunt bi àddina sépp di jaar nanga dëgërlu te góorgóorlu ci wottu ndénkaanay aji sax ji sa yàlla di jaar ci ay yoonam ni ñu ko bind ci yoon musa bu ko defee dinga am ndam ci lépp looy def ak fépp foo jublu noonu daawuda fekke ay maamam ñu suul ko ci dëkku Daawuda nguuru Daawuda ci Israël tollu na ci ñeent fukki at gannaaw ga Suleymaan wuutu baayam ca jalba te nguuram sax ba dëgër Suleymaan nag bëggoon na aji sax ji tey wey ci limu mu tëralal ni ko baayam daan defe noonu aji sax ji feeñu Suleymaan guddi ci biir gént ne ko waxal li nga bëgg ma may la ko suleymaan tontu aji sax ji sama yàlla fal nga ma ma wuutu daawuda sama baay te man waxambaane wu ndaw rekk la awma benn xam-xamu njiit kon nag defal ma xel mu neex ngir àtte sa mbooloo di ràññee lu baax ak lu bon ndax ana kan moo àttan yenub àtte sa mbooloo mu bare mii ñaanuk suleymaan nag neex boroom bi noonu yàlla ne ko ndegam loolu ngay ñaan te ñaanoo gudd gi fan wala alal wala sa deewuk noon yi waaye xel mu neex ngir àtte dëgg kon dinaa def li nga wax dinaa la may xel mu neex ak ràññee ba nga xam ne ku mel ni yow amul woon ci ñi jiitu te du am ci ñi lay topp rax ci dolli dinaa la may li nga ma ñaanul alal ak ndam ba nga xam ne ci sa giirug dund du am buur bu mel ni yow te boo jaaree ci samay yoon di wattu samay tëralin ak samay santaane ni ko daawuda sa baay dafe woon dinaa féq saw fan ci kaw loolu suleymaan yeewu gis ne gént la woon noonu mu dellu yerusalem dem fa kanam gaal gi yor kolorek aji sax ji rendi fa sarax suñuy lakk ak sarax suñuy sante yàlla mu woo jawriñam yépp ci ay ñam bi weye nag am bés ñaari jigéeni moykat ñëw ca buur ba taxaw fa kanamam kenn ki ne sang bi man ak jigéen ji dëkkoon nañu ci genn kër ma wasin fa kanamam ca kër ga ñetti fan gannaaw ga moom it mu wasin nun rekk noo dëkkoon amul keneen ku dëkkoon ak nun waaye nun ñaar rekk ci guddi jigéen ji tëdd ci kaw doomam mu dee mu jóg ci xaaju guddi fekk man sa jaam maa ngi doon nelaw mu jël sama doom ji tëddoon ci sama wet tëral ko ci wetam ba noppi jël doomam ji dee tëral ko ci sama wet bi bët setee ma yeewu ngir nàmpal sama doom gis ne dee na waaye bi mu leeree ma xoolaat ko bu baax ma gis ne du doom ji ma jur waaye jëynam jigéen ja ca des ne mukk sama doom mooy dund sa doom ma dee waaye ku jëkk ka it ne ala mikk doomu keneen kaa dee waaye sama doom mu ngi dund noonu ñuy wax fi kanamu buur kon buur bi suleymaan ne kii nee na sama doom mooy dund te doomu ka ca des moo dee keneen kii ne ala mikk doomu ki ci des moo dee te doomam mu ngiy dund mu dolli ci ne indil leen ma jaasi ñu indil ko ko te buur bi ne séddale leen xale bi dund ñaar te jox genn wàll gi kii jox geneen genn wàll gi ka ca des noonu jigéen ci doomam di dund yaramam daw ci doomam mu daldi ne buur céy sang bi jox leen ko xale bi dund te bu leen ko rey mukk waaye jigéen ca ca des ne duñu la jox duñu ma jox nañu ko xar bi ko buur déggee mu jël kàddu gi ne bu kenn rey xale bi waaye jox leen ko jigéen ju jëkk ji ndaxte mooy ndeyam noonu nag israel gépp dégg àtte bi buur bi tëral ñu daldi ragal buur ndax li ñu gis ne xelum yàlla mu ngi ci moom di ko tette ci àtteem yàlla jagleel suleymaan xel ak ràññee yu rëy ak xam-xam bu yaatu ba mel ni peppi suufi géej xelum suleymaan moo sut xelum waa penku yépp ak waa misra gépp te moo gëna am xel ñépp te turam siiw ci xeet yi ko wër yépp génne na ñetti junniy léeb fent junniy woy ak juróom dem na ba buuri kaw suuf sépp ci xeet yépp di dégg xel mi suleymaan àndal di yabal ay nit ngir ñu déglu xelam gannaaw ga mbind mi day nettali ne ca jamono jooja dafa amoon benn buur bu jigéen bu déggoon ni xelum suleymaan xóote ak ni ndamam reye ci kaw loolu buur bu jigéen boobu daldi fas yéene dem yerusalem seeti suleymaan ba xam ndax li mu dégg ci moom dëgg la am déet wante li ngeen wara xam mooy buur bu jigéen boobu mu ngi dëkkoon ci réew mu sore lool yerusalem di réew mi ñuy wax sheba te nekk ci bët saalumu arabi saoudite mooy réew mi ñuy wax tey yemen diggante réew moomu ak yerusalem tollu na ci daanaka ñaari junniy kilomètre waaye diggante bu sore boobu terewul buur bu jigéen bu sheba jóg tukki ngir seeti suleymaan ci saar fukk nag mbind mi nee na bi buur bu jigéen bu sheba déggee tur bi am ci kaw ndam li ko aji sax ci may mu ñëw ngir nattu si ko ci biir laaj yu xóot mu agsi yerusalem ànd ak topp mu takku indaale gileem yu sëf xeeti ndàbb yu xeeñ wurus wu bare bare ak per mu egg fa suleymaan diisoo ak moom ci lépp li mu denc ci xolam te suleymaan tontu ko ci laajam yépp ba amul dara lu mu laaj te buur faram fàncewu ko bi buurub seba gisee xel mi suleymaan àndal mépp ak kër gi mu tabax gis it ñam yi ciy lekkoom ak jataayu jëwriñ yi boole ci coli surga yi koy toppatoo ak fara buntu kër ak ñi ko wër ak dëgëstal yi muy jaar dugg ci kër yàlla gi bi mu gisee loolu lépp mu yéemu ba ne te mu ne buur ba xebaar bi ma déggoon ci sama réew mu aju ci sa wax yu xóot ak sa xam-xam dëgg la woon gëmuma ko woon laata may ñëw ba teg ci samay bët fekk waxuñu ma woon genn wàll gi sax sa xam-xam ak sa am-am weesu na fa ko sa tur yóbbu woon say nit ak say jawriñ barkel nañu ñoom ñi sax fi sa kanam tey déglu sa xam-xam te cant ñeel na aji sax ji sa yàlla moom mi la bëgg ba teg la ci jalub israel aji sax ji dafa soppi israel moo tax mu fal la buur ngir ngay àtte dëgg tey def lu jub fii lanu wara yem ci nettali buur bu jigéen bu seba wante li kàddug yàlla wax ci mbirum buur bu jigéen boobu yemul foofu ndaxte daanaka junniy at gannaaw jamono jooju am na lu almasi bi waxoon ci mbirum buur bu jigéen bu seba ak buur bi suleymaan yeesu almasi bi nee na ca buur bu jigéen ba dëkkoon sudd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 defoon na kem kàttanam ngir gis ndamu suleymaan te déglu xam-xamam demoon na sax ba tukki ñeenti junniy kilomètre dem ak dellusi ba xam ndax limu mu déggoon dëgg la am déet léegi nag ci lu jëm ci almasi bi yàlla yónni ci àddina moom moo sut fuuf suleymaan ci ndam ak xel ak ci xam-xam ak ci kàttan wante lu ëpp ci doomu aadama yi ràññewuñu ndamam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 wala danga ko yemale rekk ak yonent yi ba tey lu ëpp ci nit ñi falewuñu almasi bi te xamuñu ko ndax te mësuñu lëñ mbët ay mbiram ci mbind yonent yi sunu jot léegi mu jeex waaye bala nuy tàggoo tey war ngeen xam ne buur bi suleymaan bindoon na ñetti téere yu neex te xóot yu bokk ci mbind mu sell mi ñooy téere yu ñu wax léeb yi waarekat bi woyu woy yi te it ni daawuda baayam suleymaan bindoon na ay taalif yu bokk ci téereb saboor ngir àggale émission tey bi nag danu leen bëggoon a jàngal saar juróom ñaar fukk ak ñaar wi yonent yàlla suleymaan bindoon ci saboor suleymaan dafay yëgle ci saar wii ne almasi bi nit ñi xeeboon dina dellusi ci àddina benn bés ngir àtte nit ñi nanu déglu nag li buur bi suleymaan bindoon ci mbirum buur bu mat bi sut ci lépp ci mbirum almasi bi suleymaan bind na ne dina àtte sa mbooloo ci njub ak néew ji doole ci dëgg dina yilif géej gi ba fa suuf yem waa màndiŋ mi di ko sukkal ay noonam mëq suuf buur i seba ak saba féete bëj saalumu arabi di yónnee ay may buur yépp di ko sujootal xeet yépp di ko jaamu na dund abadan na turam sax faw te màqaan ci jant bi xeet yépp dinañu barkeelu ci moom ngir yépp di ko woowe aji barkeel ji barkeel ñeel na yàlla aji sax ji di yàllay israel moom kenn miy def ay kéemaan barkeel ñeel na turam wu màgg wi ba faw na suuf sépp daj ak ndamam amiin noonu la buur bi suleymaan yëgle woon ne benn bés waa àddina sépp dinañu xam ne almasi bi mooy ki yàlla fal buuru buur yi ak àttekatu àddina si yow nag ndax ràññee nga sañ-sañu almasi bi ñëwoon te nara dellu si wala danga ko yemale rekk ak yonent yi soo gëstoo ci mbind yonent yi dinga gis ne almasi bi mooy ki yonent yàlla yépp doon seede moom la mbind mu sell mi wax bi mu naan yonent yépp seedeel nañu almasi bi ne ku ko gëm yàlla dina la baal say bàkkaar ci turam ndax gëmuloo yonent yi mbokki déglukat yi nu ngi leen di gërëm ci déglu bi bu soobee yàlla ci njàng mi ñëw dina dinanu gëstu ci mbirum yonent yàlla Ilias mi nga xam ne moo ñaanoon te mu taw safara su fekkee ne am ngeen laaj ci li nu jàng tey bind leen nu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li almasi waxoon bi mu naan ca bés penc buur bu jigéen ba dëkkoon ca sudd dina jogandoo ak niti jamono jii yay leen ndaxte dafa jóge ca catul àddina ngir déglu xam-xamu suleymaan te moona ku sut suleymaan a ngi fi